الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على سيد أنبيائه والمرسلين وإمام أصفيائه والمتقين محمد الذي فصل ما أجمل في القرآن بأحاديثه الشريفة وشرح ما استصعب منه بتعليمه ودلائله الحكيمة وعلى آله وصحبه الذين ضحوا بالنفوس والجاه والأموال والأهالي والديار في سبيل بناء الإسلام ومن نهج منهجهم إلى يوم قيام الناس لرب العالمين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعنا اليوم يدور حول الجار موضوع هام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انتبه أو التفت انتظارنا إلى هذا الموضوع حيث قال الجار قبل الدار ولذا هذا الموضوع موضوع هام جدا يحتاج إلى الاستماع والإنصات لكي نستفيد مما سيقول الشيخ gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci gàttal waxtaanu tey bi tomb la bu am solo ndaxte koo gis ci ñun dëkkandoo nga te da nga am dëkkandoo ba tax na yonent bi mbir mi dafa am solo lool ci moom muy attirer attention nit ñi foo mënta dëkk na nga seet dëkkandoo balaa dëkkuwaay loolu tax na thème bi dafa am solo waa alhamdulilah ki ñu ko jox ñun ñëpp xam nañu ko danañ ko expliqué ba mu leer nañ li mu laaj daal mooy déglu nañu déglu lépp lu muy wax ngir bu ñu fi jógee mu nekk njariñ ci ñun ñu mën koo jëfee kama qultu ama cheikh kama taarifunahu jamian ganiyu ani taarif mutqinan wa muliman bil mawdu nasalu llahu lahu أن يشرح صدره ويطلق لسانه لنفقه قوله جعلنا الله من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه فشيخ تفضل مشكورا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلم وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ci yàlla ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi leen di ziyaara di leen baalu ak di leen baal ak ci weeru màgg wi nu nekk muy shahru ramadan al mubarak noo ngi ñaan buur yàlla jalla wa jalaaluhu li nu jaamu yàlla ci weer wi mu néew mu bëri yàlla nañ ko yàlla nangul lépp lu nu tarxiis yàlla nañu yàlla jéggal di am mbégte dajeek yéen ci barab bi di fàttalante ak yéen benn tomb ci tomb diine ji muy aljaar muy dëkkandoo mu nekk tomb boo xam ne tey ci jamono ci waxtu yi ñu toll dafa war a nekk tomb boo xam ne guddi ak bëccëg dañ ko war a waxtaane yambaxi an la na malla tarxaha wala natab takraraha waruñoo sonn waruñoo yokkat te di ko def di ko baamtu di ko baamtuwaat ba mu sax ci xol yi dugg ci dënn yi fees jëmm yi ndax pénc mi mën a jakk dëkk bi mën a baax mbokk jullit yi tey bokk na ci li sànku te waroon fee des mu nekk lu nuy dund muy dëkkandoo lu tax alsayu alladi yulfitu nazar fi alahadis alnabawiya alsharif an alnabiya sal allahu alayhi wa alihi wa sallam rabata alimaanu kull bi ikrami aljar bal nafa an alladi la yamanu jaarahu azaahu nafa anhu liman idan kam hiya alaqa hada alxulq biliman alaqa wasija bal hiya alaqa rabitiya falaw ulqiyat hadihi alfadila la ulqiya aliman li kenn mënta weddi ash-shay'u allazi yulfitu nazar mbir mi nga xam ne tey day tax nit di geestuwaat di xerewluwaat di dégluwaat bu baax a baax ci xadiisu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xadiisam yu bare a bari yu mu wax soññ ci jullit ñi mooy yonent dafa jël dëkkandoo daa di koy tënkale ak ngëm yàlla wala ngëm yàlla ni mu toll yonent bi dafa jël ngëm daa di koy taqale ak dëkkandoo jëlul julli jëlul koor jëlul aj jëlul leneen waaye lan la yonent taqale ak ngëm yàlla yàlla subhanahu wa taala ni mu toll ak màggaayam yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam kuy lor dëkkandoo gëmoo yàlla kon looy dégg sens contraire bi mooy ku baaxal ci sa dëkkandoo gëm na yàlla kon loolu la yonent bi def taqale ko moom yonent alayhi salaatu wasalaam ci ay waxam mu dàq ngëm koo xam ne daf koy wax ne man gëm naa dëkk ci jàkka ji dëkk ci jaamu yàlla waaye day lor dëkkandoom yonent bi ne kii gëmul yàlla kon looy dégg ci jikko ku gëm day defar dëkkandoom day baax ci ay dëkkandoom day nekk nit day dund li nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala wàcce ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi dàqal na ngëm kuy lor dëkkandoo xaqul jaar fi qiyamil islam ndax dëkkandoo mooy ki nga dëkkal ci kër wala ngeen dëkk ci quartier dëkk ci koñ dëkk ci dëkk bokk oto di tukki kii mooy sa dëkkandoo mu ne dëkkandoo boobu lil jaari fi qiyami lislaam aadaabu sharia huquuq ci islaam ci diina ji ñuy dund muy islaam danañ fa fekk ay àq yoo xam ne islaam moo ko rëdd daan ne képp koo dëkkal képp koo nekkal dangaa war a respecté lii li tax tey mënuñu dund yenn dund yi ci sunu biir kër yi koñ yi mbedd yi quartier yi dëkk bi c'est parce que islam lañu xamul nit ñi bu ñu xamul islam dunu mën a dundul l'islam di wax looloo tax tey diine ji tumaranke foo toll ci biir dëkk bi ci biir àddina bi da ngay gis ay jullit yoo xam ne ni nu mel melokaan yi ñu yor du yooyu la leen lislaam sant nañ ko mel la ñuy jëf du loolu la leen lislaam sant nañ ko jëf fanu nekk du foofu la leen lislaam nekkuloo la ñuy wax day dem ba ca la ñuy col la ñuy lekk la ñuy naan da ngay fekk lépp lislaam dàq ko ne bu leen ko jege bu leen ko def waaye jullit ñi sëgg ci li ko waral nag mooy benn rek la lenn rek la mooy ñàkk a xam l'islam ñàkk a xam li ñuy dund islam dafa am ay valeur islam aw dundin la islam aw tëralin la wu yàlla tëral sàkku ci ñun ñu jaar ci tëralin woowu ñu dund loolu nekkul ne rek da ngay mel nu la neex da ngay gis ku ñëw ci quartier jënd terrain commencé dajjati kër gi mu fa jënd wala fekkoon ne terrain la mu commencé sotti ay bagage am ciment suuf nangam commencé occupé mbedd bi di toj poussière bi naaw ci biir dëkk bi ci biir koñ bi ñëpp di ñaxtu moom lu muy wax bon ah man damay tabax sama kër ah man damay liggéey ah man damay ah yoonam du ci nekk fekk foos sax boo koy gas dangaa war a gàddu sa dàll dugg ci koñ bi yëpp baalu leen ax balaa ngay gas foos bi laa wax tàggu leen ba pare baalu leen ax c'est parce que bis boo commencé ngacc ndox mi muy ñëw ci foos bi di nga yàq noy yi nit ñëpp conférence bi sax ñu def balaa ngeen koy def da ngeen waroon wër fii ci koñ bi yëgal leen ko wax leen fii lañ koy def tàggu leen loolu la ñu lislaam sant muy dëkkandoo dinañ ñëw ci kanam waa ji doon jaay këram dëkk dëkkandoo nan la def mbokk yi ay àq yoo xam ne yenn yi àq mbokk la yenn yi àq dëkkuwaay la yenn yi àq ànd la yenn yi àq nekk benn bu ci nekk jullit ñi war koo xam almuwaasala jokkoo bi ziyaaraat bi seetanti wa tahaadi bi joxante an yuhda kullu minhum al axar hadiya taabiran an al mawadda wal iyaad hiina al marad wal muwaasaat wa hiina musiba wal mauna hina alxaaja wa kafful aza ak yoo xam ne dina tënku ci jox ko di ziyaarante mbokki jullit yi tey boo gisee li jullit yi njëkk a ñàkk mooy ba ñu dundee culture occidentale occidentaux yi ñu dund seen culture ñun jullit ñi lan la def ci ñun dafa def suñu diggante ay barrières yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak sahaaba yi li ñu xamoon mooy kër yoo xam ne amul buntu kër ci waxin kër yoo xam ne amul buntu kër ci waxin nit ñi di duggalante di jàppalante di gisante di xamante di jokkoo di ziyaarante ay waxtu ay minute ay seconde ay bis ay semaine nit ñi di gisante ba ñu ñëwee ba jàng dundinu tubaab yi li ñu njëkk a def mooy ñu def la kenn ku nekk sa bopp sa bopp sa bopp sa bopp dëkk ci quartier tabax étage bu gudd ut ay fenêtre weñ porte weñ tëj kenn du génn kenn du dugg kenn du la xam lu dul ñu ngay gis yaa ngi indi sa oto bal sax yenn saa yi nga tent oto bi ba vitre yi ñuul kenn xamul ki dëkk fii kala da ngay di ñu ne waaw fii kër gi kan moo ci dëkk kenn xamu la ci quartier bi kenn xamul sa njaboot loolu bokkul ci islam islam dafa am muwaasalaat jokkoo loolu moo tax ñu indi julli juróom ci jàkka ji su ñu ñëwee julli julli waxtu yi bu ñu noddee ñëpp ñëw ci jàkka ji ñu ne ah diw de ñëwul suba ñu seetlu ñëwul tisbaar ñu seetlu ñëwul tàkkusaan bu ñu jullee timis ba pare gaa yi dem seeti ko xam ci lan la nekk xam lu tax ñëwul julli si loolu moo indi waxtu yu juróom su fekkee ne loolu koñ bi la su fekkee dëkk bi loolu moo indi julli jumaa da waa ji day julli si jumaa julli si jumaa dëkk ci dëkk bi ñëw nañ jumaa tey kenn gis ko balaa jumaa bi ñëwaat gaa yi seeti ko lan moo tax julli siwul jumaa loolu moo indi korite lii koñ la woon julli juróom koñ bi la woon julli vendredi gox bi yëpp la korite dañuy boole juróomi cité yi yëpp wala fukki cité yi ñu dem fële ci àll ba tabaski ñëw gën a yaatu loolu moo indi dajaloo jullit yi pour ñuy daje di gise imaam yi di jël ay thème ci julli yi di ko waxtaanee su fekkee lu rëy la ñu yóbbu ko jumaa ñëpp yëg su fekkee lu gën a rëy la korite su fekkee lu gën a rëy tabaski loolu mooy mbiri mbokk yi waaye bu fekkente ne amul ziyaara amul tahaadi joxante joxante ci lislaam par exemple da ngay gis ci weeru koor lan nekk da ngay gis dëkkandoo yi ku nekk da ngay bëgg di jox di ziyaara ji say mbokk waaye nga leen di jox ndeysaan ci lu ñu dogoo ci lu ñu dundee ci lu ñu jàppalante kenn ku ci nekk ci ñoom day bëgg jox mbokkam benn hadiya boo xam ne day daf lay wane ne man de dama laa bëgg mbokk yi ki woor ba ngoon di dog desee tuuti bi ndogu desee tuuti am benn mbokk jullitam bu fëgg buntu këram mu ubbi mu gis kooku ëmbal ko dara ci mbuus jox ko daa di delluwaat mu dugal mbuusam boobu ci biir ubbi gis tey li mu war a ndogoo la ko waa ji indil fekk fanaanoowul woon ndogu yendoowu ko woon waa jooju mbokk yi ndax day noonu kii saa yu ko gisee tee ci koñ bi day nekk noonu lan lay nekk allah lan moo waral loolu lan moo tax kii léegi bëgg na kii ci saase waxuma la li des ci koor gi waaye li des ci at mi waaye li des ci dund gi su fekkente ne semaine bu nekk waajooju def loolu bis bu waaji doon am jafe-jafe ci koñ bi kañ la kañ lay njëkk a gis ah su xewlee këram kañ lay njëkk a gis bu amee bànneex kan lay njëkk a gis su amee métit kan lay njëkk a gis suy dem fenn bëgg ku mu àndal kan lay njëkk a gis kon lii mooy sunu diine mooy a ziyaaraat di nuyante ji waaye du yem ci loolu rek ak di joxante di joxante pour lan pour mbëggeel gi mën a sax ci sunu xol ci sunu dund waaye wal iyaad di nuyonte ji di nuyonte ji xiinal marad jamono boo déggee sa dëkkandoo tawat na dafa am benn xale bu góor bu ma dëkkal suñ ma doon wax fan yi kan laa gën a bëgg ci koñ bi ci xale yu góor yi moom moom laay wax donte ne waxuma ko xam ngeen lan moo tax sama yaay dafa feebar dafa glissé ci karo yi tànk bi damm ñoo pere waaye boobu ak léegi léegi mu mat daanaka ay juróom benn weer su ma juumulee bi ko xale bu góor boobu yéegee suba gu nekk dina taxaw sunu biir kër ñëw nuyu sama yaay suba bu nekk laa wax bis bu nekk su ma fa nekkee su ma fa nekkul te maa ngi moom amuñu woon relation noonu de xamante nañ ci kon bi dinañ nuyonte suñ gisantee dinañ waxtaan mais dama ne boobu ak léegi bés bu nekk dina dugg suñu kër indiwu ma ko fa sama soxna indiwu ko fa samay doom indiwu ko sama yaay lay nuyu si après dem chaque jour le matin bu nekk dana fa ñëw ba ma xoolee loolu ma gis kii ki ku baax la ki am na valeur moo tax gis nga démb dañ ñu may tàndara ba ñuy joxe ci koñ bi rek dama ne tël rek daan ne njëkk leen diw ñiiree gis nga loolu dafa am lu bëri lu muy jur mbokk yi diggante ziyaara ji nit yeneen bi alayhi salaatu salaam nee na yàlla dina xuloog nit yowmal qiyaam yàlla day xuloog nit waaw xuloo yàlla day xuloog ñun yowmal qiyaamati allahu akbar waaw ku yàlla xulool mbokk yi kan la yàlla di xulool koo xam ne dafa dëkk nekk jullit dëkk ci benn koñ dëkk ci koñ bi am na jullit bu fa feebar seetiwu ko ba kooku wér wala seetiwu ko ba kooku dee yowmal xiyaam moom waa jooju seetiwul woon ko feebar ki mu daal di ñëw ci yàlla yàlla ne ko yow bi ma feebaree lu tax seet siwuloo ma déggu leen lu ma wax de lan laa wax
yàlla feebar yàlla feebar yaay na waaji bi ma feebaree lu tax seet si woo ma doomu aadama ne subhanallah yàlla tudd naa sag màgg sag sell yow borom asamaan ak suuf nooy feebaree yàlla mu ne ko bi nga nekkee ci àdduna doon dund xamoon nga diw mu ne waaw waaw ñoo bokkoon koñ yàlla mu ne bis déggoo woon ne feebar na mu ne ah kay yàlla mu ne bi nga déggee feebar na lu tax seeti woo ko doomu aadama bi nakk nakkal yàlla ne ko boo ko seeti woon di nga ma fekk ci wetam boo ko seeti woon di nga ma fekk ci wetam kon boo ko seetee mën nga seeti xoolal léegi ñun foofu ci dund boobu rek foofu point boobu bu ñu fa yemoon def fa waxtaan wi yëpp ci jullit ñi ni ñu mel tey yenn saa yi jullit day dëkk ci koñ feebar moom kenn ci biir kër gi feebar feebar ba dee ci biir néeg bi xam nga kañ la xam gaay yi di xam ne kii dafa feebaroon bu nëbee ñu ñëw di dajji bunt yi fekk xasaw na ci koñ bi mi ngi xasaw koñ bu nekk yenn saa yi nga dégg ñu ne ah diw koñ bële ah nangam fekk waa ji moom kenn dafa nekkoon moom day tëju comme day tëju waa koñ bi tamit na merde day tëju day dof dof li dina xam ne ñoo ko gën a dof amoon nañ benn waay bu dëkk suñu koñ bu daan liggéeyee gaz ñii sol avion avion yi kérosène wala daan liggéeyee yére yooyu sax la daan sol soo ko gisoon mu solu ba nekk ci oto bi da nga yaakaar ne kuy dawal avion la wala kuy réparer avion mooy seen tenue yooyu nga xam ne tubéy yéeg mbubu yéeg lépp ànd ak dàll yi yooyu la daan sol bi mu ñëwee loué benn immeuble ci koñ bi yor oto waa ji buy dugg ci bu jógee ci liggéeykaay bi di dugg ci koñ bi ñëppay daw ba mu ne xaj ci buntu këram ni oto bi tël génn ku bi garage bi tël tël dugg mel ni affaire gangster yooyu nit ñi naan ah sunu dëkkandoo bi sunu dëkkandoo bi benn bis muy arrière fekk ñuy mool mu rajaxi mool yi bu mu génnee lu mu wax wax leen ñaata laa yàq ma fay ko ñu ne wow borom mool yi ne ko demal beneen bi muy ñëw rey ay ginaar ginaar gi ñaata la wax leen ma fay borom ginaar gi ne ko 5000 mu génne 5000 jox dem yoonam nit ñi nag commencé waaji waaji waaji waaji waaji waaji yàlla def benn bis mu xëy dem liggéeyi gaz yooyu muy indi ci këram benn gaz bi tàkk explosé ci biir kër gi parce que mbindaan bi moo ko doon taal kër gi tàkk bi kër gi tàkkee nit ñi daw parce que doom jaa ngi fa jabar jaa ngi fa mbindaan maa ngi fa ñooñu commencé lakk balaa sàppoor ñëw fekk waa koñ bi genn wàll gi sauvé nañ mbindaan bi jabar ji doom ji lakk na mbindaan bi lakk mais génn nañ leen mais lakk yi metti na ñóbbu leen hôpital ndeysaan doom ji moom daal di génn àdduna mu ñëw fekk waa koñ bi genn waa liggéey bi lakk sapeur bi di leen sapeur bi di leen dugal mu ñëw xamul lu muy wax ñoo duggaat ci oto bi rek dem mais noonu la toxoo ci koñ ba boobu bis boobu mu duggee ci oto bi dem ànd ak waa këram del siwaatul ci kër gi ba nu mu dee del siwaatul ci koñ bi parce que dafa am gàcce dafa dem quelque temps mu daal di génn àdduna moom tamit maanaam jullit du dëkke noonu ci koñ ak koñ boo fay dëkk yonent bi sax daf laa wax ne balaa ngay dëkk ci koñ bi na nga ñëw nga ut ay dëkkandoo ba pare aljaar qabla daar benn sàppoor dañ ko may benn terrain ci benn dëkk mu ñëw xool terrain bi kër gi ñu ko may dafa sës ak baar mu ne borom terrain bi jëla sa terrain kooku ne ko ah lu doon mu ne ko fii daa am baar fii moo fi dëkkee samay doom dañuy yàqu allahu akbar allahu akbar maa jullit diineem daf ko war a gënal lu ne waa ji ne ko ah mu ne ko doy na ah xanaa gisoo baar bi man du ma dëkk fu am baar noonu la waa ji delloowee terrain bi ne ko baar bi xam nga borom du ko fi jële te man fii kon fii laa nar a dee man mun naa bañ a naan waaye samay doom màgg léegi dugg fii fu ma jëm doy na bàyyi ma ma dee ci luwaas bi waa ji ne ko jaay ko keneen mu ne ma jaay ko jullit mu néew dëkk bi moom it ay doomam dugg foofu yow loolu xanaa xamul li ngay wax man kay du ma ki ma ko jaay léegi bu fi dëkkee loru man la jëlal sa yëf yaa xam foo ko jëmee waaye man doy na waa ji nee naa leen mbokk yi noonu la perte terrain te mun naa leen tuddal turam parce que mu ngi fii seen koñ bii la dëkk ab sapeur la ah jullit diineem daf koy gënal lu ne mbokk yi soo dëkkee ci koñ nekk ab jullit yëgal ne ab lor warul génn ci yow dem ci jullit ñi lor mais da ngay dëkk ci quartier da ngay gis ñoo xam ne même seen buntu kër sax bu ñu koy bale dañuy xaaj mbedd mi dañuy xaaj affaire wujje yooyu da ngay gis ñaari kër yu laalante nga gis kenn di bale ñëw ba ci diggante ñaari miir yi ñun de fii la ñuy yem waaw wala ndox nga gis ku yor ndoxam romb buntu këram ñëw buntu kër jàmbur ne ko fa pon wala bàyyi ba guddi yërndu gisuma kenn yërndu gisul kenn ne ko paa ci buntu kër jàmbur daw duggaat xanaa yow yëgoo ne alam yaalam bi anna allaha yara alam yaalam bi anna allaha yara gis nga bu ñu gëmoon ne yàllaa ngi ñuy gis rek sunu dundu jag abdullah ibnu omar dafa génn ànd ak sahaaba yi ñu dem ci àll bi ndeysaan loolu gaa yi naan sorti ñu dem rek lal seeni basang gaa yi simi seen dàll tekki mbax na yi tëg rek ñu seen benn sàmm di ñëw di leen romb bi sàmm bi jege see rek Ablaye ibn Omar ne ko waa sawaay na nga def mu ne maa ngi fi ah waaw doo ñëw lekk waa ji ne dama woor tey mu ne ko bés bu tàng bii ngay woor mu ne ko dama woor bés bu tàng bii ndax yàlla musal ma ci tàngaayu yowmal qiyaamati Ablaye ibn Omar ne ko waaw jërëjëf waaw yal na yàlla nangul la waaw xar yi nga yor ku ko moom mu ne sama kilifa sama patron moo ko moom mu ne ko doo ñu ci jaay benn ñu rey ko lekk mu ne su ma demee lu may wax sama sang bi borom mu ne nga ni ko tilli ñoo ko lekk Ablaye ibn Umar a ngi koy seetlu de comme neen dafa woor te boo demee nga ni ko tilliee ko lekk sàmmkat bi daal ne Abdullah ibn Umar ayna Allah ana yàlla allahu akbar ayna Allah baat boobu moo defaroon dundu gaa yi démb ayna allah ana yàlla ayna allah fi hayatina ana yàlla ci sunu dund ana yàlla ci sunuy jëmm ana yàlla ci sunu comportement ci sunuy jaamu ci sunuy biir kër ci sunuy xol ci sunuy xalaat baat boobu moo changé woon démb sahaaba yi ba ñu yégee ne yàllaa ngi ànd ak ñoom wa huwa maakum ayna ma kuntum kii xëpp mbalit ci mbedd mi kii xëpp ndox kii tooñ kii bale ci biir kër gi sax di falaxaale ci néegu jàmbur wala di wis ndox sax xëppaale biir néegu jàmbur wala rido jàmbur ngir rek bëgg coow nekk pànk ci biir kër kër gi ba kenn ñemewu la même bu ñuy wax dañ naan neex a dëkkal ah ana neex a dëkkal mu ngi fi ah wax leen ndànk kat ah yenn saa yi sax nga gis ñaar ñu daje ci mbedd ragal a taxaw waxtaan ah diw ma ngi may xool te danaan ci ñun xaar xaar ba mu dem sama kër nga ñëw maanaam nit du dëkke noonu ci quartier mbokk yi ab jullit du mel noonu ab jullit ndeysaan sama papa liir bu daan jooy ci biir kër gi liir su la fabee danaan almumin xayinun layinun noonu la lay naxee almumin xayinun layinun loola daan wax su lay nax jullit dafa war a lewet dafa war a nooy noonu la jullit war a mel maa jullit waru nekk pànk sooy nekk pànk ci yéeféer yi nga war a nekk pànk ndax loolu la yonent bi wax alquran loolu la wax muhammadu rasulullah wallazina amanu maahu ashidda alal kuffar waaye seen biir ruhama baynahum sooy pànk da nga war a pànk ci yéeféer yi booyi nooy ci jullit yi nga war a nooy mbokk jullit yi al muashara bil maaruf ma al jaar dundandoo ak sa mbokk di dund jullit ci dund bu rafet ci dëkkaale bu rafet hada ma yufassiru al ulama kalimatu al muashara bil maaruf boroom xam-xam yi ba ñuy firi baat bii di baat bii di al muashara dund dundandoo nekkandoo loolu yàlla naan wa aashiruhunna bil maaruf dund leen ak jigéen ñi dund bu rafet ñu ne laysa al muaashara bil maaruf an tamnaa an iqaa'i al aza bil muaashara bil maaruf nekkul rek nga nekk ci kër gi wala koñ bi ne man duma def lu bon déedéet dafa tuuti fi nga ko tënk dafa tuuti man de duma tooñ déedéet dafa tuuti yàlla baatu maaruuf la la wax njekk maanaam yow bi ngay dëkk ci koñ bi ci njekk rek nga war a nekk lu baax da ngay nangu sax ay lor tegu sa kaw au lieu mu tegu ci kaw jullit ñi abu darda radiyallahu anhu wa ardaahu dafa dëkk ci kër gi yàlla daf kër gi am ay jinax jinax yi dul jeex néeg bi kër gi yëpp ay jinax la lu mu teg jinax yi lekk mu ne waaw man mii de sonn naa man sama yére yi sax léegi jinax yaa ngi koy lekk waxuma laa dund kër gi benn waay ne ko da ngay dem àll ba nga rëbb muus mu nganda nga indi ko ci kër gi muus mi bu nee tëll fii dootul demati ndax bis bu nekk dina am lu mu lekk abu darda daal di xëy rek gàddu saakam utali àll ba ba mu demee def ay buumam daal di jàpp ngandum siiru mus mu ngand mu dugal ko ci saag bi di ñëw ba mu tegee ñaari jéegu rek xelam ne ko waaw abu darda waaw muus mi nga jàpp sa kër nga ko jëmee xel mi ne waaw mu ne waaw boo dugalee muus mi ci biir kër gi jinax yi gis muus mi tiit bu nu dawee fan la ñuy dugg mbokk yi kër gi bu amee jinax jinax yi bu ñu dawee génn ban kër la ñuy dugg ah beneen kër gi allahu akbar allahu akbar mu ne ah kon de damay lor sama dëkkandoo ndax maa tax jinax yi dem foofu te këram amul jinax mu daal di tekki muus mi ne naa muñ rek yàlla nu yàlla def baax na mu daal di muus bàyyi muus muus mi daw mu daal di ñibbee noonu ak saaku kese allah xoolal ñooñu nuñ doon dundee xoolal ñun tey kee ay jinax la bañ mu lor dëkkandoom ay jinaxu këram la bañ mu lor dëkkandoom ñun ñun bu ngeen tontu ñun suñuy doom mooy lor suñuy dëkkandoo suñuy doom waxuma sax ñun suñuy doom waaye ñun ci suñu bopp ñooy lor suñu dëkkandoo ndeysaan gisoon naa koñ boo xam ne benn immeuble bu mag dafa tiim benn kër bu baraag këru baraag bi ndeysaan seen toilette amul mbaar ci kaw bu waa kër gi di sangu waa kër gi di yëg ci kaw di leen seetaan di leen yërndu ba affaire bi feeñ borom kër gi dem di ko wax bon mu ne ko yow salaamaaleykum yow sa doom yi nekkee di suñ toilette bi rek ñoom ñu ñuy yëndu mu ne defar leen ko bon du ngeen ko defar bon man en tout cas daal defar leen seen kër est-ce que loolu la ñuy dëkkee est-ce que loolu mooy dëkkandoo am na koo xam ne ay bëyam lay bàyyi mu yëg këram étage la mu defar ko ba mu rafet béy yi dañuy bàyyi ko ci étage am di dem ci ci ardoise jàmbur yi rajaxe ko ba ardoise yi rajaxoo waa ji ne ko doo téye sa béy yi mu ne ko mënaluma béy yi dara oustaz Abdoul Karim Gueye ki ñu tuddee woon école bii ay béy ñoo tax mu jaay këram jaay kër gi la def ñëw dëkk ak man sama koñ moom lañ tuddee école bii école bii moom lañ ko tuddee woon ay dëkkandoom moo tax mu jaay këram ay béy yu koy lor di toj ardoise am nawet bu nekk kër gi di senn mu defar ba sonn mënatu ko mu ne xaaral ma dem daal di jaay kër gi xoolal loolu est-ce que loolu mooy islam mbokk jullit yi borom xam-xam yi dañu ne mbaax lañ wax waxuñu nga nekk fi naan defuma ko defuma ko lu bon déedéet dañu ne lu bon loolu sax moo fa warul nekk moo fa warul am place bu lor sa dëkkandoo na nga dund ak moom dund bu rafet bil maaruf taani an tahtamila al aza fawqa kabirin bayna an tamna an iqaa al aza bil jar yow nangul yenu lor yi nangul yenu sa loru dëkkandoo waaye yow bul ko lor su loraange di am nangul yenu lor yi mais ñun tey da nga naan moom na dee sama yoon nekku ci looloo tax dund bi ñuy dund am problème parce que kenn ku nekk liñ la yare liñ la jàngal mooy njëriñ loo fekke kenn ku nekk ci ñun mbokk yi liñ ñu jàngal yare ñu ko tey mooy njëriñ loo fekke njëriñ loo fekkee waaye yow li ngay def nii nga ni waaw ñu ne ban njëriñ nga ci am waa ji ne man kay awma ci njëriñ mu ne amoo njëriñ nga ciy rey sa bopp ah man de bu doon man la man nangam ak nangam loolu moo ñu indi problème loolu nag du ab jullit jullit moom li ngay njëkk a bëgg mooy nga am yërmande yàlla ngërëmal yàlla ci li ngay def te yàlla moo la sant nga wattu dëkkandoo yàlla moo la sant nga sàmm dëkkandoo parce que dañ la koy laaj yowmal qiyaamati moo tax ñu ne la dundal ak moom dund bu rafet dundal ak moom dund bu baax dund bu yiw mbokk yi bul yem rek ci yenu ay lor waaye dee ko ndokkeel su amee dara demal bu dee jàmm la bu dee du jàmm na la gis àndal ak moom ci ay bànneexam ci ay doxam ci ay mbégteem ci ay naqaram ci feebar ci lu mu mun a nekk ne la dëkkandoo bi gis nga taxaw ci kanamam suñu benn imam dal na ko yàlla fay dañoo dëkk ci benn cité cité bu bees am benn waaye bu fa dëkk rek kenn xamu ko waa ji du dem jàkk amul kenn ak affaire ci koñ bi yàlla li muy def waa jooju yaayam feebar ñu jële yaayam dëkk ba indi ko ci ci cité biñ dëkk mu yóbbu yaay ji hôpital yaay ji gaañu ah léegi nag comme ne yaayam gaañu na ci quartier bi te xam naa ne ni mu mel ak waa quartier bi noonu la mel ak waa dëkk ba parce que nit ki moom ni nga mel rek foo dem foofu nga ko yóbbu mu am problème mu jékki-jékki rek ñëw ci imaam mi jàkka ji laajte ana imaam ñu ne fii la dëkk mu ñëw imaam imaam ne waaw ne sama yaay daa gaañu dama bëggoon ngeen jox ma caabi morgue bi ma dugal ko imaam ne ko yaay kan mu ne ma maa dëkk ci kër gi imaam mi ne ko kooku foofu am na nit waaw imaam am na nit kay ku fa dëkk mu ne man yow xamuñu la xamuñu la fii ci quartier bi du ma la jox caabi ji imaam ma ko gën a xam te ko bugg a yar yow xamuñu la fii ci quartier bi du ma la jox caabi ji caabi ji waa koñ bi la waa jàkka ji ñoo ko moom yow bokkoo ci mu ne imaam wallahi fii laa dëkk dama kii rek da nekk daal kii lan loo kii ndeysaan mu am gànc imaam ne ko waa nan dem imaam ñëw ubbi morgue bi boo xale yi ñu jàppoo kees gi ñu dugal kees gi ci oto imaam dugg ci kanamu oto bi ñu dem bu hôpital imaam jël maire bi dugal ci kees gi ñu taalaat oto bi ñëw dugal ci morgue bi imaam taal congélateur bi dem toog ne ko buñ koy bu sa mbokk ñëwee nga wax ma mu ne imaam wool waa koñ bi ba ama benn mbokk de dañu woo waa koñ bi imaam jël micro jàkk ji daan ne mbokk yi dañoo am fii soxna su wàññeeku fu nekk ku dégg kàddu gi rek ñëwal ñëpp ñëw ñu defar maire bi ñu woo jigéen ñi mag koñ bi ñu ñëw defar maire bi ñu dem suuli ko ñu ñëw nag léegi ne war a toog nag pour waxtaan ñu ne ko waxal mu ne amul lu may wax de xanaa ngeen baal ma àq rek maa ngi baalu àq waa koñ bi imaam maa ngi lay baalu àq imaam jël micro bi waas ko ba mu set waaye waajooju léegi ca koñ boobu damay bañ a tudd tur bi moom moo yor caabi jàkka ja loolu mooy diine kenn mënut a nekk fenn man kenn mënul nekk tukulóor yi dañ naan jawa wooto seng lata jawa wooto seng lata benn lam du yëngu yow kenn cundum sa biir kër loolu mënut a nekk même boo nekkoon milliardaire mënut a nekk yow kenn mën lu mënoo dund waaw te gis nga lenn bu yaboo nga xam ko soo dëkkee fenn nga yëkkati sa loxo ne man faalewuma waa koñ bi yëkkatil beneen loxo bi yëkkatil beneen loxo bi ne waa koñ bi faalewuñ ma waaw loolu nag du mbirum jullit jullit moom foo dëkk daa naan faale naa leen yéen jullit yi looloo tax ndeysaan nga gis ñu baax ñi bu ñuy dëkk ci quartier dañuy ñëw ci chef de quartier bi ñëw ci imam bi ne ko man kat dama fee tox si gan laa kër sàngam laa dëkk soo déggee nodd nga ñëw imam présenté la gars yi chef de quartier présenté la gars yi nga bokk ci koñ bi waaye ñëw rek te sénégalais moom dafa gaaw a fuuy fee lay am am benn sagaru deux cent mille rek commencé changé ñu xama sax million deux cent mille rek su nee nii di ko daj ci poos bi rek day commencé changé waaw dootul waxati ak nit ñi dootul dem fen nekk biir crime commencé doser nit ñi di ñàngal di loolu du mbirum jullit jullit du mel noonu jullit boo yoroon àdduna ak lu nekk ci biir kenn waru koo yëg kenn waru koo xam lu dul muy jóge ci yow di bàyyeeku ci nit ñi nga bokk ko doomu aadama yi bokk koog jullit yi sa kër waroo ko tëj ku la soxla daf la war a gis ndax loolu la ñu diine jàngal loolu la ñu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam jàngal mbokk jullit yi nanu bàyyi xel li nu diine di jàngal du lu ñuy wax rek lépp ko lëppoon mu daal di dem def ko tey conférence weeru koor daal di ba sànni ko mu daal di dem déedéet su ngeen gisee nit ñu baax ñi raw ñi ñoom dañ ko doon dund ñun nag suñu problème tey mooy dund dund diine dañuy wax nii rek après nga dégg ba doyal yaa ngi ni dégg nga tey li ñu wax ci dëkkandoo suba nga commencé këpp ndox ci mbedd yi commencé gaaruwaale nit ñi commencé di leen xeew lu ñu wax nga ne ah man de sama yoon nekku ci ku ma xool ma xool la ku ma xool ma ne la xulli du noonu unwaanu rais yatadammanu anawinul fariya dafa am benn àq bu borom xam-xam yi di wax mooy xaqu suqa laqad addahu baadu ulama xaqan mulziman yenn borom xam-xam yi ci yenn mazhab bi yenn mazahib yi dañoo jël àq bi def ko ci àq islam mooy bu ma dëkkee ci benn appartement yenn saa yi nga dëkk ci koñ yenn saa yi nga ñëw ci yenn cité yuñ tabax immeuble yi dañuy tegaloo day am deux trois quatre mu tegaloo nga xam ne tey ki nekk ci suuf moom moom pare na mënatul teg dara ci kawam ki nekk ci digg bi mënatul teg dara ci kawam parce que am na ku nekk ci kawam borom xam-xam bi dañuy wax ñu dëkk dëkk bu mel noonu wala am na kër yoo xam ne ci biir cité yi miir yi benn miir la maanaam saal bi ak saal bi ñoo bokk benn miir bu ñu tojoon miir bi ñaari saal yi yaakaarloo loolu day am ci tabax yi tabax yi gouvernement yi tabax noonu lañ koy def boo demee ci yenn cité yi day jël benn miir boole ko ñaari kër léegi boo dëkkee ci kër gu mel noonu ndax yow da nga war a changer sa miiru saal rek nga ñëw jël miir marte di toj boo ko tojee ba pare nag mu génn ci kër gële nag nga gis kër gële ne yàmbalan te ndeke miir bi benn la looloo tax bala nga ko doon toj dañ la ne nga dem wax ak waxtaan ak sa mbokk bi bala ngay jaay sa kër da ngay dem waxtaan ak say dëkkandoo am na benn buur ci buuru islaam yi algérien la dafa dëkk ci benn gox moom borom alal boobu buur boobu kilifa googu benn bis rek benn waay ñëw ne ko sa dëkkandoo bi de day jaay këram mu ne ah ban problème la am bay jaay këram mu ne ay boro ko topp am na benn waay bu mu ñëw waxtaan ak moom ne ko damay jaay kër gi mais waa ji li mu ko fay daal baaxul mu ne dem leen ngeen woo ko ñu woo waa ji mu ne ko yow da ngay jaay si kër mu ne ko damaa bëri bor mu ne ko yow doo jaay kër gi parce que yow dëkkandoo bu baax nga yow bi nga dëkkee ak man ba léegi nangami at lu baax rek laa xam ci yow bor boobu ñaata la mu wax ko mu ne ko am dama nga fay ko ndax boo ko jaayee léegi nga indil ma fi keneen koo xam ne nag ku bon la nga indil ma problème waa jooju lan moo ko fayal borom yooyu waa jooju lan moo tax këram googu jaayiñu ko ak mbaaxam ndax dëkkandoo ba ragal na keneen ñëw jënd kër gi def ko baar wala keneen ñëw jënd kër gi def ko dancing te dancing ci quartier fan la nit ña jëm baar ci quartier fan la nit ña jëm looloo tax ñu lay wax balaa ngay dëkk utal dëkkandoo gis nga keroog waa ji waa ji dafa génne alal ju mat sëkk ne ko bor bi ñaata la mu wax mu day ko dema nga fay mbokk yi ash-shaahidu fi l-qur'an al-qur'an moo ñuy wax kan mooy dëkkandoo fi l-qur'an al-karim ayat daqiqa adida yaqulu al-mawla jalla wa ala wa'budu allaha wa la tushriku bihi شيئا وبالوالدين إحصانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخور mbokk julli di sunu borom wax na ci alquran ci ay aaye yu sew yu bari yu leer yàlla di joxe ndigal borom bi nee na jaamu leen yàlla te bu leen ko bokkaale waabudullah wala tushriku bihi shay jaamu leen yàlla te bu leen ko bokkaale ndigal la yàlla joxe ndigal gu njëkk mooy lan jaamu leen yàlla la ca tegu tere la mu nekk ndigal bu leen ma bokkaale kon kuy jaamu yàlla bul bokkaale tey nag bokkaale daa bëri néew na ku dul bokkaale ci jullit yi néew na te ku nekk da ngaa war a contrôler sa bopp ci bokkaale yonent sax dafa yoroon ñaan gu muy ñaan ne yàlla yàlla nag ma musal ci bokkaale gu ma yëg ak gu ma yëgul ma sama ak ñun nag tey da nga ci gis ak a néew tey nit ñu dul bokkaale ak a néew surtout nag dem ci seetkat surtout dem ci gisaanekat surtout dem ci buxaaba surtout sangu ci ay xërëm ak a bëri surtout jigéen ñi ni onon kam on yehito ceerno ala hamin amin kumto so min kumtima min jaaha dem ngeen ci sëriñ bi ba ñu ndogu ak néew ci ñun tey ñu dul dem ci ay xërëm te yonent bi nee na ku dem ci xërëm kat ni ngay dem rek soo jullee 40 jours yàlla dootu la ko nangul ñeent fukki fan bi ngay dem yeggagoo soo demee ba nga yegg ci seetkat boobu mu wax la dara nga gëm ko weddi nga li yàlla wàcc ci Muhammad yéeféer nga waxuma sax nga dem ci seetkat bi waaye maire yi dañuy añ ba pare toog fii di seet yor ay yor ay kii pettaaw koroj koroj koroj sànni lii de leetar la lii de xaalis la lii de te nag ndeysaan gis nga loolu kooku di la wax fii boo demee ci keneen kuy seet fee loolu dong la lay wax mas ngaa gis nga jël ay ay ay lan loolu ñuy seetee nu tudd ay petaaw nga sànni ko petaaw yi tegaloo nga xam lu ñu wax nga sànni petaaw yi kay saa ko sànni il faut ñu def dara lii de yoon la ah yoon lan xanaa lee tukki la ah lii de ak ngoro la lii de sëy buy waaj a tas la ah loolu de yal nañ ci yàlla musal lii de xaalis la nga dégg ñu ne jox ma ko naan noonu la ñu def seet seet billahi boo ubbi woon léegi kanting di seet nga am xaalis bu dul jeex te kat lii kese lañ lay wax am na sama benn yaay boo xam ne da daan seet maa ko tere seet mu ñëw ne ko seetal ma mu ne ñaar ma ne ko ñaata la mu ne cent franc ma jox ko cent franc mu ne koroj koroj sànni mu ne lii de aw yoon la ma ne ko fu mu jëm mu ne déedéet ku ñuy seetal day noppi ma ne ko déedéet man damay laaj yoon wi kay da nga ma wax fu mu jëm mu ne karaj karaj lii de sëy bu tas la ma ne ko amaguma jabar de mu ne yow mënuma laa seetal ba jàpp ko ci waxtaan boobu waxtaan ak moom ba xamal ko lay danger ci seet ak seetlu ab julit du seet ab julit du gisaane ab julit du dem ci ay xamb ab julit du dem géndal tey loolu dafa bëri ci suñu société bi te loolu yëpp xeetu bokkaale la te yàlla nee na bokkaale kat bu dee day dem safara innahu man yushrik billah faqad harama allahu alayhi aljanna wa ma'waahu nnaar wa ma li zalimina min ansar yàlla nee na maa ngi leen di yëgal li wóor tey mbir képp ku ma bokkaale képp ku ma dendale kenn wala lenn képp ku jël mbindeef wala dara wala lenn nga dendale koog yàlla li yàlla moom nga jox ko ko yàlla nee na yow mi def loolu booy deema lay lakk ay aaya yu wér këng la cheikh ahmad bamba nee na la tushriku billahi ya ixwaani fa innahu yahdi ila niiraani ci tasawudu sigaar bu leen bokkaale yéen samay ñoñ ndax bokkaale da yóbbu nit ci safara yonent bi nee na ak azamu ism an tajala lillahi niddan wa huwa xalaqak bàkkaar bi gën a rëy mooy nga utal yàlla ndend te yàlla la bind kon loolu ci aaya bii yàlla di wax ci dëkkandoo loolu la ñu yàlla njëkk a tere mooy lan wala tushriku bihi shay'an lan la ci teg mu ne wa bil walidayni ihsaana na ngeen rafetal ci seen ñaari way jur waaw beneen problème Sénégal moom yaay yi ay sagar lañ yaay yi ak paa yi ak sa ay sagar lañ waaw yaay yi ak paa yi ay sagar lañ léegi parce que paa bi léegi mënatul mère bi màgget na yow léegi yaay daw dépasse kër gi léegi paa bi dafa war a nekk dégg sa ndigal wala bu weer dee doo fay courant bi wala doo joxe dund gi su paa bi woowee di la wax da nga naan non man li moo war a am ah mu ne la waaw waaw waaw parce que xam na ne su bañee bu weer dee doo fay courant ñooñu sax ñooy ñu baax ñaar ñeneen ñi dañ naan gis nga paayo boo ma moytuwul léegi ma kil la dafa am benn jour may waxtaan ak ay nit ñenn ñi ne ma xam nañ kooku dafa am benn waaye bu daan nekk entre préfecture bu Géejawaay ak police ak SDE di raam daf yaramu neen ñu bëri xam nañ ko fii waa ji yaramu neen ni ko yaayam jure dung la doon def mais mënatul dox day raam ku yàgg a dem diggante roi Baudouin di yéeg di jël ci super yi di yéeg noonu ci oto yooyu diggante total bi préfecture police police ah ba wiiri SDE ba bies doore bi côté boobu stade Amadou Bari ku yàgg a jaar mbedd moom di dox stade di nga mus nga gis waa ji waa ji ni mu ñaawee làmmiñ la hawla wala ko te ni ko yàlla def benn bis ma ni waaw kii di ko def nii ñu ne ma kii daa dóoroon papaam ba caaya bi dagg ñu ne déet ñu ne dañ ko mus a fekk ci jabaru sëriñam mu ne day siif jabaru sëriñam xool leen waajooju fu mu mujj gis ngeen képp kuy toroxal sa ndey ak sa baay wallahi booy dee ñi lay suuli duñ sol yére képp kuy toroxal sa ndey ak sa baay li alquran wax su yeboo mu nekk ci ñun pas pas wa bil walidayni ihsanan yàlla nee na ndey ak baay rafet rek lu rafet rek maa ngi benn vidéo fii sama portable benn cheikh ci Arabie Saoudite day nettali mooy nettali xissa bi nee na benn jigéen ci benn hôpital benn jigéenu docteur dañ ko benn xale bu góor bu tudd Muhammad daf ko indil yaayam mais yaay ji dafa dof yaay ji xamul ne moo jur doom ji yaay ji dafa doy waar xam ngeen nit ku dof day saaga xale bi di ko gajj di ko duur di xotti ay yëreem te terewul xale baa ngi indi yaay ji hôpital docteur bi bi mu xoolee mbir mi jaaxal ko mu ne ko yow kii sa lan la mu ne ko sama yaay la mu ne ko mais yaay joo xam ne xamul ne moo la jur mu ne waaw mu ne kii naka la la jure mu ne ko sama maam moo ko mayoon sama pap bi mu ëmbee ci guddi yu njëkk yi sama papa xam ne kii wérul sama papa fase ko ndeke bi mu ko fasee jël na ci ëmb mooy man mii mu ne waaw mooy sama yaay bu xamul ne ma jur yàlla xam na ne moom moo ma jur mu ne kan moo koy toggal mu ne man kan moo koy sang mu ne man lu mu laaj kan moo koy def mu ne man maa koy def fi muy wax ak moom rek maire bi yuuxu rëkk xale bi ne ko kañ nga ma yóbbu umra Arabie Saoudite la mu ne ko yaay alxamis dinaa la yóbbu mu xaqataay ndaw si nee na daanaa dégg kuy baax ci ndeyam mais keroog laa ko gis ndaw si dafa dañoo génn rek ndaw si tëju bureau bi di jooy ci biir ba docteur yi ñëw ñëw ubbi bunt bi di laaj ndaw si lu xew mu ne dama daan dégg rek ñuy wax kuy baax ci yaayam mais tey laa ko mës a gis nit day baax ci ay woy juróom mbokk yi paa bi ngay xeeb tey maire bi ngay xeeb xanaa xamoo ñii boo nekkee ñoom la xanaa xamoo boo tekkee tey ñaar ñii la ñii ñoo bàyyi woon seen guddi bàyyi seen bëccëg ndeysaan xoolal jamono bi nga nekkee xale nga feebar sa yaay du nelaw guddi sa papa du nelaw yenn saa yi nga gis parent boo nga way jur boo xam ne kilifa goo xam ne parent boo xam ne trois heures du matin quatre heures du matin minuit ngay dajeeg moom hôpital soo ko ne looy def fi mu ne diw moo feebar ñu gàddu la gàddu indi nekk ak yow foofu ci coono yenn saa yi nga gis muy taw sa yaay boot la bu dee benn sër la yor kan lay muur sër bi bu mu tooy boppam walla yow barki démb am na benn mbokk bu ma woon ci Facebook bi benn photo benn immeuble buy lakk benn immeuble di lakk yaay ji di sauver doom ji ndeysaan doom jaan ci biir safara si yaay ji dugg génne xale bi di ko jaaral ci fenêtre bi bi mu nee nit ñi di yoor xale bi moom safara si jàpp ko ndeysaan xale bi rëcc xoola moom mu dee yaay jooju dafa mujj dee te doom ji la doon musal loolu ñaata ñaata yoon léegi nag xale boobu tey màgg gis yaay ji màgget na bët yi dugg na mënatul gis bëñ yi deñ na yaram bi lax na lan la xale boobu di wax waaye mère bi yal na dee ba ma noppalu waaye am na benn xissa du ma tàyyi di ko nettali ci diggante nit ak wéy juróom du ma tàyyi di ko nettali benn waajoo xam ne malaak bi mu faatoo malaaka yi dem ci ay blanc liñ ko doon bindal ci ay jëfam malaaka yi yàlla ne yóbbu leen waaji safara malaaka yi dañoo tiit su jot ci kanamu yàlla ñu ne yàlla waaw kii lu ko yóbbu safara yàlla mu ne lu tax du dem safara ñu ne liggéeyam ay dossier am sijilu registre bi ñuy bind tiyaaba yi gisuñ ci bàkkaar tiyaaba rek lañ gis yàlla mu ne parce que yéen xamu leen xëybu yéen a doon bind ci kaw rek ngeen gis waa ji lan la def ba ngeen bindal ko ay tiyaaba ñu ne waa ji dafa amoon yaay moo koy fóotal moo koy sang moo koy solal moo koy defal lépp moo koy jox mu lekk moo koy jox mu naan noonu la nekkee noonu la nekkee noonu la nekkee ba yaay ji génn àdduna mu dem suul ko malaaka yi ne yàlla ñun loolu lañ xam ci kii moo tax ñu bindal ko tiyaaba yàlla mu ne est-ce que xam ngeen ne bu defoon loolu mu def ba pare lan lay wax ñu ne ko déedéet mu ne saa yu joxee meer bi mu lekk wala mu naan wala mu sang ko wala mu sang ko wala mu yenu ko dugal ko ci biir néeg bi xol bi day wax allahumma xuzha wa arihni minha yàlla yàlla nga rey meer bi ba ma noppalu waaye loolu la xol bi di wax yàlla na meer bi dee ba ma noppalu fii xale yu jigéen yëpp genn wàll gi yëpp loolu la ñuy wax xale yu góor yi fii genn wàll gi yëpp loolu la ñuy wax waaye paa bi yàlla na góowaay ba ñu jaay gàlla bi mën naaw quoi wala ñu bëri fii xale ci góor yi loolu la ñuy wax paa bi bis bu góowee mooy bis bu deewee ba ñu jaay gàlla bi quoi ñu jox ma sama wàll mën naaw bu dee xale jigéen ñi ñu ëpp fi dañ naan bàyyi kii kii ak kanamam gi dal na dee ba nu noppalu kan lay wax loolu yaayam ndeysaan jàngeen saahibu Moussa rafiqu Moussa jàngeen xissa bi Moussa dafa toog banu Israil mu ne yàlla ndax dinaa dugg aljanna xaaral ba ma pare quoi dafa am ñuy waxtaan fi xaaral bañ pare dafa am ñuy waxtaan fi buñ paree rek ma commencé waat noo xaar ba ñuy waxtaan pare ah ah pare nañ bismillah saahibu Moussa jàng ngeen ko mbokki histoire Moussa Moussa dafa jékki-jékki mu ne yàlla kan laay àndal biir aljanna yàlla ne ko dangaa bëgg a xam koy àndal aljanna mu ne waaw yàlla mu ne ko dama nga taxaw sa buntu kër ku la njëkk a romb rek kooku ngay àndal dugg aljanna Moussa taxaw benn xale bu góor ni tëll mu ne ah kon de kii la waaye dinaa fexe ba mu xam ba ma xam kii lan la def ba ànd ak man aljanna kii dinaa ko xam tey Moussa topp ko topp ko ba mu dugg ci biir kër Moussa taxaw di ko xool mu dugg ci benn néeg génne basang lal ko ci digg kër gi duggaat ci biir néeg bi génne fa benn màgget bu jigéen teg ko ci basang bi tekki mbuus mi mu yor génne paaka di dagg yàpp di jox meer bi muy lekk bu mbuus mi jeex mu dem indi ndox jox ko mu naan mu indi morso fomp gémmiñ gi daal di yenwaat meer bi dugal ci biir néeg bi daal di ñëw lem basang bi dugalaat ci biir néeg bi jëlaat fett yi ndeke waaj xale bu góor bi saa yu xëyee day dem rëbbi rey ay njombor rey rey fees lakk ba mu ñor daggate indi def ci mbuus bi mu ñëwee yaayam ne Moussa mu génn ndeke ndeke yaayam la mu génn Moussa ne ko ki nga doon jox lekk sa lan la mu ne ko sama yaay la innaha ummi allahu akbar sama yaay la mu ne waaw bi nga ko joxee mu lekk nga jox ko mu naan balaa nga koy delloo gis naa mu lay ñaanal mu ne waaw mu ne bar ñaan la la ñaanal mu ne daa yëkkati loxo yi ne allahumma ij'al ibni haza maa musa ibnu imrana fil janna allahu akbar yàlla maa ngi lay ñaan yow sa màggaay sama doom ji yàlla nan ko booleeg Muusa doomu Imran ca aljanna yàlla nan ko booleeg Muusa doomu Imran ca aljanna xam nga Muusa lu mu wax xale bu góor bi abshir fa ana Muusa fa anta rafiqi fil janna kontaanal yow xale bu góor bi man mii maay Muusa yaay sama àndandoo biir aljanna kon nañu fonk sunuy wéyjur yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci weeru koor ci minbaru juma mu ne amin ñetti yoon bi mu paree sahaaba yi ne ko lu tax nga wax amin mu ne jibril moo doon ñaanal ñetti nit alkande ñetti nit yàlla buñ dugg àjjana yonent bi naan amin kan moo ci njëkk ku fekke weeru koor te fexewul yàlla baal ko kan moo ci tegu ku ndeyam ak baayam di dund te amul aljanna ci ñoom ñaar sa ndey ak sa baay di dund amoo àjjana yow dootoo dugg aljanna lu tax aljanna taxta aqdaamil ummahaat benn professeur day jàngale laaj xale yi ci école bi damaa bëgg ngeen wax ma aljanna fu mu nekk suba bu ngeen ñëw ngeen wax ma ko suba ku nekk na ma indil aljanna fu mu nekk xale yi ñëw mu commencé premier rang kii ana ajjana mu ne mu ngi asamaan ana ajjana mu ngi biir géej aña ana ajjana mu ngi fële ci jardin yi ku nekk di wax ba mu egsi ci benn xale ana àjjana mu ne mu ngi sama suufu tànku yaay aljanna taxta aqdaamil ummahat yonent bi nee na àjjana mu ngi seen suufu tànku yaay ku sa yaay di dund te amoo aljanna wallahi dootoo dugg aljanna loolu bu yeboo ngeen dugal ko seen bopp yéen ndaw yi yéen ñi am sens tey seeni way jur di dundandoog yéen yëg leen ne seen aljanna pare na waaye ku ci repp ba sa papa sa yaay génn àdduna amoo ci ñoom àjjana amoo seen ñaan yow alku nga lu tax ridallah fi ridal walidayni wa suxtillah fi suxti man fi suxti hima yàlla yonent bi nee na kontante yàlla mu ngi ci kontante ndey ak bàyyi beneen bi ci yàlla teg ci aaya bi mooy wabizil qurba way jege ñaale yi soo amee ay mbokk nga ñu jege la mbokki deret mbokki dëkkandoo da ngaa war a rafetal ci ñoom ndax loolu la yàlla wax wa bil walidayni ihsanan la yàlla wax wa bi zil qurba ihsanan way jege ñaale yi da ngaa war a rafetal ci ñoom tey bokk na ci li ñuy dund Sénégal nekk sàmba àllar baax ci mbokki jàmbur bon ci say mbokk waaw baax ci mbokki jàmbur baax ci ñeneen ah nekk ci télé yeeg rajo yi di maye xaalis fekk yow mbokk yi nga bokkal deret mbokk yi la jege kenn xamul sag mbaax loolu musiba naaru laay la ab julit su fekkee ak mbaax la dañu ne ñi la gën a jege même bu dee xeex la dañu ne na nga xeex ak ñi la gën a jege même bu dee da ngay waaraata ñu ne waaral ñi la gën a jege wanzir asirataka al aqrabin wa qatilu allazina yalunakum min al kuffari même bu ngeen di xeex yéeféer yi ngeen njëkk a jege yi leen jëkk ngeen dëkkal ci biir kër gi balaa ngay génn fenn njëkkeel ci ñooñu wal yataama jirim jullit dafa war a rafetal ci jirim jirim mooy ku baayam génn àdduna mu nekk xale bu ndaw majeur agul ñaata yoon la alquran ñëw di ñu dénk jirim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ana wa kaafilul yatim mu daal di joxoñ ci baaraamam mu ne ka haatay ni maag ki yar jirim nii la ñuy mel yowmal qiyaam nii yàlla wax na ci alquran wala taakulu amwaalal yataama bu leen lekk alalu jirim yi tey nag li am ci dëkk bi mooy borom kër gu génn àdduna rek nga gis gaa yi ñëw saax saaxee alal ji jaay kër gi noose ko bàyyi xale yi ñuy tumaranke xale yoo xam ne seen papa bi mu leen di bàyyi bàyyi na leen kër xale yooyu di mujj dund ci luwaas loolu musiba naaru laay la ku lekk alalu jirim safara mooy bax-baxi ci sa biir yowmal qiyaamati jirim yàlla moo ko dénkaane lim ci teg mooy wal masaakiin miskiin yi soo dëkkee ak ay miskiin miskiin mooy ku amul dara ko koy miskiin ku amul dara bu añee du ndékki bu ndékkee du reer amul lenn amul sax lu mu ndogoo wallahi démb ci guddi lañ ma wax téléphone benn jigéen joo xam ne ci dëkk ba mu dëkk moom dong moo fay dund diine waxuma sax day muuru waaye kanam gi sax daf koy muur waaye moo gën a sonn ci dëkk bi day woor ba ngoon du am lu mu ndogoo su toggee suñ ko mayee kilo ceeb bu ñëwee bu ko toggee sombi du am suukar démb lañ may woo téléphone di ma ko wax am ku ko utal paas ne ko demal Dakar nga fekki fa jullit yi nga ñaan leen ndimbal ma ne ndaw si doon wax ak moom di ma doon woo téléphone su duggee Dakar nag ma ko wax xam naa ñoo may woo xoolal nga nekk ci nga nekk jullit nekk ci quartier lan la la waa quartier ba bañee c'est parce que da ngay dund diini c'est parce que da ngay dund diini parce que li yàlla wax loolu ngay def li yonent bi wax loolu ngay def ñu bañ la ci loolu ne la dëkk bii de xamuñu fi lii ñun de lii miinuñu ko lii de du sunuy aadaay maam lii nag moom lii nag moom lii nag moom loolu la dëkk bi mel tey booy jaamu yàlla rek yaay noonu nit ñi même boo nekkee xale bu ndaw di muuru ci kër nga dégg mairie bul ñu indil problème de bul ñu nga mel ne kuy gaaf tëñ ji nii suba ka jam de suba ka jam surtout nag ku xëy suma njëkk a dajeeg yow man de xaw ma lu muy muuru nii xaw ma lu muy def nii xaw ma lii waaw xamoo ko mais yàllaa ko digle mbokk yi lu yàlla digle dañ ko war a def wala dañ ko war a ba xanaa xamoo boo ko deful dinañ la ko def gis nga yow mi bañ ne doo nekk nekk jullit bu jigéen ne doo muuru lànk dëgër bopp fetteerlu ci kanamu yàlla may naa la ñetti fan demal rek may naa la juróomi fan may naa la semaine may naa la weer may naa lay at léegi ñu ne génn nga àdduna ñu sànni la ci morgue ba paa yi daw jëndi ay muuraay yu bëree bëri waxuma la ñu muur la waaye dinañ la yeew ba say wee sax du feeñ muuru nga de te muuraay bi xanaa léegi nga ko bañ waaye bi nga juddoo ñu lay jox imaam na la na la na la tudd ndax dañoo indi liir bu def bopp neen def yaramu neen ban liir lañ joxoon imaam gaa yi ah soxna si dafa mel ne mu ngi tontu ban liir lañ joxoon imaam bu ñu laxas dañ koo muuroon wala muuruñu ko dañ ko muur ok ku jigéen ki daal di màgg daal di dindi muraay bi sànni fële ñu tax ñu may muur jëkkër jóge fële ñoo ne damay takk bi muy dem kër jëkkëram nuñ ko defoon bopp neen la demee wala nuñ defoon ah dégguma ko de ah mu sëy si ñetti fan daal di sànni muuraay bi yàlla ne ko dinaa la muur te muuraay boobu dootul dañati yàlla ne ko dinaa la muur te bu suma la muuree muraay boobu kenn du ko dindi waaw mooy bis boo génnee àdduna dem jëli juróom-ñaari mètre percal laxas la ci ba nga mel ni mburu ñu yeew ba mu ne keng ñu waaxu ñëw ba ci armée li gës ba mu xóot ne la sarax tëmbal yàlla fekk la nga toog foofu nag ne la waaw yow tey de muraay bi du deñ kon nañ leen bàyyi xel sunu bopp bu nu àdduna jay li ñu yàlla sant buñ ci tànn lu neex ak lu naqari yàlla santaaneem jëfe yàlla mooy koo xam ne santaaneem jëfe rek jëfe soo bëggee am tiyaaba jëfee li la yàlla sant borom bi ci aaya bi mu ne miskiin yi ba mu waxee miskiin ba pare xam ngeen yàlla kan la ci teg wal jaari zil qurba dëkkandoo bu la jege borom xam-xam yi ci aaya bi la ñu xaaj dëkkandoo ñetti xaaj dëkkandoo boo yoreel ñetti àq dëkkandoo boo yoreel ñaari àq dëkkandoo boo yoreel benn àq ban dëkkandoo nga yoreel benn àq balaa ñaar ñeeg ñetti ñi mooy ki nga bokkal koñ bi du jullit bokku leen deret dina bokk koñ bi waaye du jullit de ci leneen la nekk ban àq nga ko yoreel dëkkandoo bi koñ bi da ngaa war a sàmm loolu àqu dëkkaale gi yowmal xiyaam dañ la koy laaj ban dëkkandoo nga yoreel ñaari àq dëkkandoo bi nga bokkal koñ bi mu mu nekk jullit yore nga ko àq koñ bi yore ko àq njullit gi ñaari dañ la koy laaj yowmal qiyaamati ban dëkkandoo nga yoreel ñetti àq ki nga bokkal deret mu nekk jullit ngeen bokk koñ bi ñett la dañ la ko laaj yowmal qiyaamati ah tey nag da ngay gis koo xam ne ñett yëpp lay violé faalewul mbokk gi faalewul dëkkandoo gi faalewul koñ bi yëpp lay bomb dund bi ñuy dund foog ñu changé ko su fekkee dañoo bëgg am jàmm dañoo bëgg nekk ay jullit du ñu toog nii rek ba weeru koor ñëw rek ñu daal di dajaloo def conférence daal di woor dem ñu bi déedéet mbokk yi diine dañ koy dund togg bu ñu togg ba mu ñor teg ko yekk ko lu lu ngeen ci xalaat dañ koy këppi mbalit lekk rek mooy diine diine dañ koy dund diine du lu ñuy tandu diine du lu ñuy toppandoo diine dañ koy xam dund ko wallahi wallahi ay bëccëg a ngi ñëw ay guddee ngi ñëw ku dundul diine boo demee ci biir bàmmeel di nga rëccu bu leen yaakaar ne li ngeen di gis ci mbedd mi nii fii ak wax yi ngeen di dégg ak naxaate gu bari gi bu leen yaakaar ne allaaxira am nañ fa ñoo xam ne wala koo xam ne day wañ loxo yàlla ne yàlla ñuy fal force danañ dugg àjjana loolu ngeen di dégg nii ay caaxaan la kese dara amu ci kenn waxu ko jàng leen téere yi jàng leen alquran moo ngi nii ku nekk am na sa kër yéen ñi mënul lire arabe sax bu ngeen demee di ngeen ko jàng en français jël leen kaamil yi ngeen traduire ngeen xool ndax di ngeen fa fekk aaya boo xam ne yàlla nee na ku nekk nekkal ci loola neex boo ñëwee dugg àjjana nanu xam ne dëkkandoo dafa am importance dëkkandoo dafa fort dëkkandoo bi la jege sahaaba yi bi ñuy firi loolu al jaari zil qurba wal jaaril jëm ñu ne mooy koo dëkkal ci biir kër wala koo dëkkal en distance wa jaari zil qurba mooy ku la jege fii ci biir kër wa jaaril jamb mooy ku nekk en distance yaay Aïcha bi mu koy firi mu ne arbauna daar jaar 40 maison dëkkandoo la 40 maison koñ bi ba koñ bële nga compter 40 loolu moom yàlla nattuwuñu Sénégal loolu amu fi 40 foo compter rek 40 maison da ngay gis lépp sës bal sax borom xam-xam yi dañ naan ñëpp ñuy julleendoo ci jàkk ay dëkkandoo lañ ñëpp ñu bokk jàkk ñooñ ñooy dëkkandoo loolu buñ ko doon compter tey kon ñun ñëpp benn lañ waaye dëkkaale googu dañ koo dundul moo tax dëkk bi mel nii da ngay gis koñ boo xam ne nit ñi comme ay xaja ki muus waaye loolu fan lañ ko tàmbalee ci biir kër yi nit ñi ni ñu mel ci mbedd yi ci biir kër yi lañ ko jëlee parce que kër yi ñoo baaxul waaw parce que ci biir kër yi la nit ñi defaroowul bu ñu bëggee dëkk bi jag dañuy defar jaami yàlla yi ci biir kër yi su biir kër yi baaxee rek mbedd mi daal di jag su mbedd mi jagee penc mi jag su penc mi jagee dëkk bi jag waaye dëkk bi mënut a baax li ngeen di dégg tey Sénégal dëkk bi du baax c'est parce que xam nga lu tax nit ñi ñoo baaxul ca ca ca reen ya garab gi ñuy jëmbat suñu bëggee garab gi jub kañ lañ koy jubanti ba mu amee téeméeri at kañ la ñuy jubanti garab gi ba garab gi nekkee garab gu tooy nekk gu ndaw ca lañ koy jàpp jëmb jëmbat ko boole koog bant bu dëgër bu jub xocc boole koog di ko suuxat boole koog di ko garde di ko sàmm garab googu bu màggee daal di jëkk yonent bi nee na inna arbaina daar sharqan kulluhum jiraan sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na maa ngi leen di yëgal ñeen fukki kër penku ak saw ñoom ñëpp sa dëkkandoo lañ da ngay gis mag ñu baax ñi ndeysaan bu ñu xëyoon suba kër gu nekk danañ taxaw ci buntu kër gi asalaamualeykum waaleykum salaam jàmm ngeen fanaan nag nangam nag jàmm sant daal di génn su ngoon suba it ñu ñëwaat du ñu sonn mais léegi su kenn ñëwee sa kër sax ñaari yoon ñett nga ni kii wóor na ma ne dëmm la ah o dee giite wallaay koo sukkuña waaw kii bëtam yii bis fajar gu nekk rek mu ñëw sama kër gi wóor na ma ne dëmm la léegi sax bu fekkoon ne bunt bi day ñëw ubbi ko puus rek léegi da ngay ñëw ne bunt bi kenn dëkkum digg waa ji bu ñëwee sax fëgg léegi dootul mën a dugg te mbaax rek moo ko ci dugal ak bëgg am tiyaaba léegi nit ñi yooyu la ñuy daw yooyu la ñuy daw ba léegi dootoo dem fenn ah man de léegi dootuma dem ndax nit ñi léegi dañoo bëri wax foo dem ñaari yoon ñett rek lu fa xew ñu ne yow a gis nga commencé dañuy baare di baare di baare di baare ba kenn dootul ñeme kenn léegi sax da ngay dem kër ñu ne la kaay lekk nga ni suur naa fekk xam nga ne suuroo boo waxee nga ne man ñi wóoluwuma leen ñi de dañ leen di tàmm dañ leen di tooñ koo tooñatee da mu tooñi mu ku ko tooñ kan ma ko tooñ yéen yéen a ko tooñ parce que yéen a wax ci moom lu nekkul xam ngeen yàlla kan la wax mooy dëmm mooy ki toog ci mbedd mi di jëw jullit yi koo koy dëmm boo waxee Sénégal dëmm amul ñu weddi ko ku gëm dëmm am na rek boo dee da ngay dem safara ndax da ngaa weddi alxuraan yàlla ki mu wax dëmm mooy kiy jëw nit ñi kiy lekk seen yàpp kiy toog ci deru nit ñi rek naan diw diw diw diw ba ngoon jot kooku la yàlla wax mooy dëmm kee ñu naan dëmm dafa feebar seytaane moo ko dugg di ko wax ci di wax ci moom loo xamante ne dara amu ci te su ngeen ko yóbbee ci fatkat yi normal yi rek ngeen gis ne moom du moom moom du ci dara waaye seytaan mooy def loolu pour yàq diggante yi fan ngeen mës a gis nit ku jël nit rey ko togg ko di ko lekk def ko ci cin togg ko ba mu ñor lekk ko fu ngeen ko mës a gis fan ngeen mës a gis xaj di lekk yàpp xaj fan rabu àll yi ci seen bopp ku nekk sa xeet doo ko lekk tey rek ngay gis nit di lekk nit ndax toog ci deram di naan deretam loolu ay mbir la yoo xam ne islaam daf ñu koy tere ndax dëkk bi mën a jag mbokk yi borom xam-xam yi yokku nañ bu fekkee ci immeuble lañ dëkk ñu ne 40 maison su fekkee ci suuf lañ dëkk ñu ne 40 maison ñooñu ñëpp ay dëkkandoo lañ mu nekk ay mbir yoo xam ne feek delluwuñ ci source islam yi problème rek la ñuy am hadis bi gën a rëy ci ndénkaane yonent bi ci dëkkandoo yonent bi alayhi salaatu salaam lu mu wax mooy hadisu jibril ma zaala jibril yuusini bil jaar hatta zanantu annahu sa yuwarrisu hadis bi ñëpp a ko mokkal yonent bi nee na jibril dañul di ma dénk naan ma fonkal sa dëkkandoo yow muhammad fonkal sa dëkkandoo yow muhammad fonkal sa dëkkandoo ba ma yaakaar ne su ma deewee sax sama dëkkandoo bi daf may doon alaqatul is hiya alaqatul qaraba mbokk yi mbirum ndonno mbirum ndono mbirum ndono kan moo koy def ndono kan mooy donn koo bokkal waaye xoolal yonent bi yéegal ko ba indi ko ci dëkkandoo xam nga lu tax ñu ne dëkkandoo day donn xam nga tax yonent bi waxoon ko sa dëkkandoo saa yoo xëyee suba gis ko di nga am mbokk boo xam ne mu ngi bokk ak yow ndey ak bàyyi année bi benn yoon nga koy gis mooy korité wala tabaski année bi laa wax benn yoon nga koy gis korité mu ñëw ziar si la wala tabaski dëkkandoo bi nag bis bu nekk nga gis ko bis bu nekk nga teg ko bët am na ci mbokk yoo xamante ne semaine nga leen di gis benn yoon am na ci ñoo xam ne weer nga leen di gis benn yoon am na ci ñoo xam di nga toog at benn yoon nga leen di gis waaye dëkkandoo lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg ñaari fan nga gis ko yow de gisuma la démb démb damaa génnoon gis nga loola tax yonent bi bàyyi loo ñu xel dëkkandoo ñu yéegal niveau bi ba yonent bi ne dëkkandoo day doon xataa zanantu ba ma yaakaar man yonent ah su ma deewee sama dëkkandoo daf may doon ba mu yaakaar lool ndax lan ndax fonk gi mu ko war a fonk mbokk yi dëkkandoo dañ ko war a sàmm fonk ko téye ko fukki loxo tey dara bu ne kër ci benn kër balaa mbokki waa kër googu ñëw kan mooy njëkk a ñëw benn kër buy lakk yàlla tere ci benn koñ balaa mbokki waa kër googu ñëw ñan ñooy njëkk a ñëw mbokk yi waa kër googu bu ñeneen ñëwoon bëgg a dar seen kaw balaa seeni mbokk ñëw ñan ñooy njëkk a ñëw gis naa benn dëkkandoo boo xam ne ci HLM Paris waa ji dafa tëdd ba digg guddi doomam crise mu yenu ko amul lu mu ko yóbbu hôpital amul oto amul dara mu ñëw fëgg benn dëkkandoom ne ko man de sama doom mu ngi yenu xale bi ne ko sama doom bi de dafa crise ci guddi gi ma bëgg nga awal ma foofu lu ma ko yóbbee fekk waajooju ba muy tëdd dépassam 5000 la waaye keroog 2000 la am mu jox jabar ji 2000 yi ne ko jabar ji ne ko lii lan la mu ne ko waa téyel rek ma expliqué la téyel 2000 suba bu ma xëyee fajar ma daw dem liggéey kaay ba ma ut fa xaalis yónnee la ko ndaw si ne ko du ma laal 2000 yi dépense bu ma sëkk nga may jox moo tax nga gis jigéen ñi encore ati am na ci ñoo xam ne yal na leen yàlla soppi li nga ma daan jox nga may jox waa ji wax wax ba ndaw si téye 2000 yi waaye ñu tëdd ñu fëgg leen mu ne ko ah sama doom de dafa xëm mi ngi nii ma bëgg nga dimbali ma foofu boo yoree 2000 nga amal ma ma yóbbu ko hôpital mu daan ne jabar ji ana 2000 yi jabar ji ne mu ngi nii mën a indi waa ji daa génn rek jabar ji tàcc ci kër gi laa ilaha illallah yow normal nga yow amuñu lu dul 2000 ngay jaay mbaax ak di jox kii 2000 mu ne ko xanaa gisoo doom ji mu gàddu mu ne ko waaye nga ne ko aw ma mu ne ko ma fen te 2000 lañ ci kër gi waa ji daal di jël 2000 dem hôpital jël oto yóbbu xale bi ñu tëddaat 10 minutes am ku fëggaat bunt kër gi mu ne ko jógal du da ngay jaay baax rek jógal keneen fëgg na benn waaye dugg si ne ko Casamance laa jógee dama war a ñibbi léegi Italie mais sama yaay dana woon balaa may dem naa ñëw gis la parce que dégg naa sama papa bi mu feebaree fii comme ñun Casamance lañ dëkk yow yaa yoroon añam ak reeram di ko indi góor gi nag gaañu na biñ ko delloo dëkk ba comme mënta woon wér biñ ko delloo dëkk ba dafa mujj gaañu ci dëj bi laa ñëwoon mu ne ko man yëguma dëj bi mu ne ko xam naa gars yi dañoo jànnaxe moo tax sama yaay ne naa fi jaar jël sa adresse doog a ñibbi bi mu ko bindalee adresse numéro téléphone ak nangam nangam bay dem mu nuyu waa ji loxo bi am na lu ci nekk mu daal di koy bàyyi ci loxo waa ji daal di dem waa ji gunge ko ba ci buntu kër gi daal di ñëw toog ci saal bi daal di bokkarti muy 20000 mu woo jawar ji ne ko ñaata laa joxe woon mu ne ko 2000 mu ne yàlla fay na ma 5000 francs bu 500 bu nekk ñaata ah 5000 man jaa man jaa bil hasanati falahu asaru am saaliha allahu akbar xoolal soxna soosu fekk jëkkër ji da koy wax chaque jour muurul mu bañ 20 millions yooyu moom muur ndaw si ba fii may wax ak yéen ñu ngi dëkk asalam Paris jabaru Bakiri ba fii may wax ak yéen mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi nekk multazima mu ngi hijab 20 millions yooyu moo ko muur mu ne nga gis nga yow gis nga gëmoo yàlla yàlla nit daf koy gëm yàlla moo wax ne boo joxee benn ma jox la fukk téeméer yooyu waa ji joxe benn bu ci nekk yàlla ñaata la ko fay 5000 ba pare yàlla defal ko ko fukk nanu gëm yàlla suñu gëmee yàlla rek noppalu billaahi ku gëm yàlla du sonn kan moo sonn mooy ki gëmul yàlla bëgg a dunde ay pexeem bëgg a làmbatu diine yàlla ji du ko jàng ay problème rek lay am yéen samay mbokk jullit jaa rajulun ila sayidina umar radiyallahu anhu wa ardaahu wa saalahu hal yaarifuka ahad qaala naam benn waaye dafa ñëw ci Seydina Omar di wax ak moom ay aajoom Omar wax ak moom ba ci yàgg ne Omar ne ko waa ku la xam ci dëkk bi mu ne ko diw xam na ma fulaanun yaarifu nii ne ko dama nga woo ko ki la xam waa ji ñëw mu ne ko xam nga kii hal taarifu haza mu ne naam xam naa ko kay Omar ne ko hal jaawartahu qaala laa hal saafarta maahu qaala laa hal haakaktahu bidirhami wa dinaar qaala laa fa qaala Omar anta laa taarifuhu xam nga waa ji mu ne waaw ndax yaa ngi moom yéen a dëkk mu ne déedéet xaw ma ko de dëkkuñu de dëkkuñu ndax mës ngeen ànd tukki mu ne déedéet ndax mës nga kaa lebal xaalis fayee ko ko mu fay la mu ne déedéet mu ne kon yow xamoo ko gis nga loolu tamit fii da ngay gis benn waaye bu jaar nii ñoo ne la asalaamaaleykum ñaari yoon ñett rek ñoo toogee yow rek soo koy présenté nga ne kii sama xarit la kii sama copain la quoi waaw kii ngi fi dëkk ñetti fan te ñaari yoon la la romb nuyu la rek nga koy présenté ne kii de sama xarit la Sénégal nu ñu gaawee ci kii xarit la moo tax bis bu nekk ñu rey leen ci loolu suñu chef de quartier koñ benn waaye def ko ziar si wax ak moom ne ko damay jaay ay terrain te yow sax dinaa la may ci terrain yi wax ak moom ba gondi ko ne ko man taalibe si Cerno Mansour Baro laa mu ne ko i mu xaddamu Cerno Mansour Baro kër gi la dëkk nañ dem rek mu yenu paa bi indil sama pap ni ko kii de sa mbokk la ndax taalibe Cerno Mansour Baro la ni paa bi ne est-ce que ubbi saal bi waa ji dugg toog mais gis nga waa ji bala muy bàyyi ñaari paa yi ñoom ñaar ñëpp la kutt te sama papa bi mu laajee chef de quartier da ko ne sama xarit la tey la ko gis tey la ko gis mu ne ko sama xarit la waaye daf leen a kutt ñoom ñaar ñëpp waxuma dafa yóbbu seen xaalis waaye seeni portable sax daf ko yóbbu gis nga li ko indi egsi na ci kër gi ah kii de taalibe sa Cerno Mansour la ñu ne ko exil mu ne waaju baax a ngi nii gis nga kii sama xarit la ah sama papa tamit def confiance ci chef de quartier ndeke chef de quartier tey la gis waa ji dañoo gaaw ci loolu jullit du gaaw xarit Omar nee na da ngeen di dëkk Omar nee na xarit waxuma da ngeen di ànd tukki Omar nee na xarit da nga koy lebal fayee ko mu fay la su boobaa mun ngaa wax kii sama xarit la gis nga ñett la Omar laaj waa ji bi ko Omar ne ku la xam ci quartier bi mu ne ko diw xam na ma mu ne ko demal nga woo ko waa jooju ñëw mu ne ko xam nga kii waa ji ne waa xam naa ko mu ne ko ndax mus ngeen ànd tukki waa ji ne déedéet ndax yéen a dëkk waa ji ne déedéet ndax lebal nga ko mu fay la waa ji ne déedéet mu ne ko yow xamoo ki ngay wax xamu ko balaa ngay xam nit ngeen séq ñett yii dëkkandoo bi nag moom xam nga ko ñaataat ngeen dëkk yéen ñi dëkk ci gox bi ñaataat ngeen nekk gum seen quartier bi yéen laay laaj de ñaataat am na fi ñoo xam ne da ngay dégg ñu ne yii bi ma fii ñëw jung xoob yaa ngi yéeg ci biir nit ñi kaw nit ñi ah kon kooku tey yéen ñaar yéen a fi nekk mën na laa seede bi ma fii ñëw boobu fii kenn du génn timis boobu ñu nag ñoom diw diw diw kooku mën na laa seede tey ndax xam na la yàgg ngeen waaye koo xam ne tey nga ko gis rek nga bëgg a ñëw kii kay ku baax la ku baax a ngi nii ëllëg ak si biir mu def dara nga ni man kay démb laa ko gis rek waaw nooy mos a gisee ni démb ne ku baax la kon yooyu ay critère la ñu islam di xoolal ay critère la ñu islam di tànnloo du kenn ku nekk ci rek muy demee ay sentiment am waaye bu ñu jaaree yoon wi nga xam ne l'islam loolu la wax kenn du am problème mbokk jullit yi fi ñuy jeexalee al jaar yaarifuhu an jaarihi xaqal maarifa dëkkandoo na xam mbokku dëkkandoom dëggi dëggi dëggi xam jëlee nañ ci xadis abi sarix an annabi sallallahu alayhi wa sallam qaal wallahi la yumin wallahi la yumin wallahi la yumin qila wa man ya rasul allah qaala alladi laa yamanu jaarahu bawaa'iqahu xoola ku tol na yonent mu waat ñetti yoon yonent waat ñetti yoon lan moo tax yonent waat nee na kii may bëgg a wax gëmul yàlla kii may bëgg a wax gëmul yàlla kii may bëgg a wax gëmul yàlla ñu ne yonent bi ko kan la mu ne dëkkandoo boo xam ne dëkkandoom wóoluwul ayam dëkkandoo boo xam ne dëkkandoom bi mu dëkkal ñemewu ko wóoluwu ko ndax ayam wu bari boroom xam-xam yi dañuy wax jaaru su qitaatun min an naar dëkkandoo bu bon dogitu safara la gis nga même nit su nekkee ku bon ci quartier nekk ku bon ci kër ba dee buñ ko yóbbee armeel ya noonu mu loroon nit ñi ci àdduna noonu la leen di loolee àllaaxira boroom xam-xam yi dañuy wax ne ku nekk ku nekk ak nit ñi di leen lor alaxira boo deewee sax buñ la buñ la jegeel nit ñu baax ñi su fekkoon ne dëkkandoo bu bon nga dañ laa war a yóbbu ci armeel yi ba ci benn côté boo xam ne suuluñu fa kenn ñu suul la fa yow kenn lu tax bis buñ la indee ci biir jaamu yàlla yi bu mbugal mi wàcc dana déborder ba laaj néew yi nga dendal ndax yow nu bon noonu nga nekke woon ci biir quartier bi nu bon loolu nga nekke woon ci biir kër gi nu bon noonu nga nekke woon ci biir dëkk bi nga nekk ci mbon googu ba nga dee ñu jël la di la suuli suñ demee ci armeel yi dañoo war a xool benn espace bu ñu suulagul nit loolu la boroom xam-xam yi di wax ci dëkkandoo bu bon lu tax bis buñ la indee ci digg armeel yi ñu suul la ci digg jaamu yàlla yi su mbugal mi di wàcc ci yow dina laa raare armeel yi nga dendal mbokk yi suñ la fekkoon bu la police bu police doon wër benn trafiquant drogue wala jaaykatu yàmba wala kuy def lu bon ñu ñëw fekk nga toog ak moom yow nuñ lay def la yóbbaale loolu mooy ñax gu wow day lakk bu tooy kon nañu seetaat sunu dëkkaale ak sunuy mbokk nanu xam ne loolu olof yi naan nuni neen la mooy ñun ay jullit lañu yonent bi nee na al muslim axul muslim jàng nañ hadis yi jàng nañ aaya yi jàng nañ hadis yi waaye problème bi yëpp mooy jëfee ar rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na laa yadxulul janna man laa yaamanu jaarahu bawaiqahu rawahu muslim yonent bi nee na kii may wax kii may bëgg a nettali ñu ne ah mu ne du dugg aljanna ñu ne kan la mu ne dëkkandoo boo xam ne say dëkkandoo wóoluwuñu sa ay ñoo doo dugg aljanna benn jigéen a ngi nii boo xam ne kenn ci xale yu góor yi toog fii suñ ko ne woon demal nga uti jabar ndaw soosu lay takk yéen ñi amul ay soxna fii suñ leen woon benn xale bu jigéen a ngi nii te suumu naxaar day wóor bëccëg wa taquumu layli di julli guddi amul jëkkër yow amoo jabar sooy takk koy takki bu na day julli guddi di woor bëccëg boo ko gisoon léegi nga ñaareel de ah bu naa da ngay ragal wax waxuma nga def ni sa baaraam dama ne nga wax ci micro bi mbokk yi ndax xale boobu loolu ñu wax noonu lan ngeen ci dégg mbaax ngeen ci dégg wala nga bon day julli guddi du nelaw su bëccëgee day woor du lekk ndax bëgg jaamu yàlla waaye xoole ibnu abbas nee na laa xayra fiha hiya fi naar ñu ne baaxul ma nga safara ñu ne ndaw si mi ngi safara xam ngeen lu ko dugal safara kaana tuzi jiiraanaha da daan lor ay dëkkandoo moo ko dugal safara allahu akbar ndeke kon mbiri du julli ndeke mbiri du woor ndeke mbiri nekkul fi rek di jaagar jaagar yi dem di génn di ñëwaat ñu naan ah masha allah déet mbiri ay jëf la ndaw si day julli guddi di woor bëccëg ibnu abbas nee na ndaw saa nga ca safara ñu ne ko lu tax mu ne kaana tuzi jiiraanaha ndax da daan lor ay dëkkandoom kon nanu xam suñu bopp bu ñu yónni suñuy doom ci suñuy dëkkandoo léeg-léeg nga nga defar kër nga defar sa kër ba mu rafet nga gis ndeysaan ay xale ñëw jël këriñ xoos peinture bi yëpp léeg-léeg nga gaaree sa oto sax nga gis xale yoo xam dañuy ñëw yor seeni xeer xoos loolu ab julit du ko def ab julit du yàqal mbokk julitam léeg-léeg nga gis borom tool ku bàyyi ay xaram kuy jaay taabal ku bàyyi ay xaram ñëw lekk taabalu jàmbur lu ne ngay gis ci dëkk bi boo waxee mu ne ah man xar yi mënu ma leen téye de ba yow man xiyam gis nga mbir yi ñuy def di ko xeeb fii yëpp lu tax c'est parce que dañoo xalaatul alaxira xalaatuñu ñun bés jëkk dina ñëw ñu dem alaxira te bis boo yorelee nit fi àq yow man xiyam boo demee say tiyaaba la ñuy jël jox ko yonent alayhi salaatu wasalaam wax na gis naa dem naa benn bis jibril yóbbu ma ma dem xooli àllaaxira lu fa xew mu ne gis naa nit ñoo xam ne seen biir yi dañoo rëy ba toll ni néeg saa yu ñu bëggee jóg daanu gis naa fa ñoo xam ne seen wey yi dañoo gudd dañuy gajj seeni kanam yi deret di sotteeku gis naa fa ñoo xam ne ci dexu deret la ñuy féey suñu féeyee ba bëgg egg tefes ñu fekk tefes benn malaaka bu toog jëlaat xeer dóor ko seen mbir gémmiñ xeer boobu yóbbaale leen ba ci digg dex gi yonent bi di wax sahaaba di wax di wax jibril di wax yonent bi yonent bi di nettali sahaaba yi ba sahaaba yi tiit waaye kenn dong moo ma ci intéressé kenn dong laa leen bëgg a wax ci lan la def bay féey ci dexu deret boobu kenn mooy dafa yoreel nit ñi ay àq àq yooyu mu yore mooy xeer yi malaaka bi di dugal ci biir bi su ngaangee day feey ba bëgg a génn balaa muy génn rek malaaka bi day jël xeer bi dóoraat ko ci gémmiñ gi xeer bi dugg ci biir bi yóbbaat ko ba ci digg dex gi dex gi yépp deret la bi yonent bi laajee jibril kii kan la mu ne ko kii moo doon lekk àqu nit ñi kon ku yoreel nit ñi ay àq fii soo ko delloowul yowmal xiyaam ci dexu deret ngay fii noonu ngay mel kon sa dëkkandoo bul fexe ba yoreel ko àq bul fexe ba yoreel ko àq même moom bu lay lor moom dëkkandoo bi bul fayu bul fayu de léeg-léeg nga dégg nag ñu wax ay baat day dof dof lu dina xam ne maa ko gën a dof kon dof yi dañuy bëri boo dofee mu dof faj du neex di kër bu bu ñaar ñëpp dofee ñaar ñi dëkk ci kër ñoom ñaar ñëpp ñu dof moo xam ay wujj lañ ñu dof moo xam jëkkër ji ak jabar la ñoom ñaar ñu dof kër googu du neex di olof yi nee na ñaari kuy du ñu bokk mbalka moom kay day dof dof lu yow niteel su defee yëfi dofam ba pare nga ñëw def def yëfi nit su yàqee nga defar su waxee waxam ju bon nga bañ ko koo delloo waaye nag loolu dafa metti de moo tax yàlla ne wa maa yulaqaaha illa allazina sabaru wa maa yulaqaaha illa zu hazin azim loolu ma leen di wax du ñëpp mënuñu ko de nga dëkk ak nit mu lay def lu bon jàngeen histoire gis naa fan yee benn cheikh di wax qissa bi wérul waaye lu neex a nettali la pour ñi jëriñu ci qissa bi mooy lan mooy nee nañ dafa am yahud bu dëkkoon ak yonent bi ku jigéen saa yu balee këram day jël mbalit mi kër yonent bi mashhur qissa mashhura qissa bu siiw la moo tax keroog bi ma déggee ñu ne wérut dama tiit ndax mu ngi ci kut genn wàllu kutub yëpp xissa baa ngi ci surtout kutub yoo xam ne ay maraaji la yahud boobu saa yu bale woon këram day jël mbalit mi jël ko kër yonent bi saa yu balee day jël mbalit mi amul sax demal ma ñëw day koy jël benn bis yonent bi toog gisul mbalit sotteeku yonent bi da waaw te di garaaw mooy jigéen ñi bu ñu bëggoon wax yonent bi moo naan leen noppi leen wala man ma dem defar ko benn bis mbalit mi tuuruwul yonent bi ne leen waaw mbalit de tuuruwul ñaari fan yi ñu ne ko ndaw si dafa feebar yonent bi julli fajar toog ci jàkka ji ba mu naaj dem nuyu ji ndaw si ne man kat mbalit daa gëj a tuuru ma laajte ñu ne da ngaa feebar ab yahud la de yonent bi ne ko maa ngi lay ñaanal yàlla wérgu yaram tawfiq ndaw si foofu dafa jóg toog ci feebaram ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah jàngeen xale yahud bi dee dugg àjjana te yahud la xale bi feebar na bëgg yonent bi feebar yonent bi gisu ko ci quartier bi yonent bi daa di laajte ñu ne xale boobu dafa feebar yonent bi dem seeti ko ñëw fekk muy sukuraat yonent bi ne ko waxal laa ilaha illa allah xale bi xool papaam yonent bi ne xale bi waxal laa ilaha illa allah mu xool papaam ndax moom yahud la dafa ragal papaam papaam ne ko ati abal qaasim ati abal qaasim ati abal qaasim toppal baayu qaasim maanaa waxal lim la wax xale bi ne laa ilaha illa allah daa di faar dugg àjjana yonent bi tuubloo na ko balaa muy dee kon nanu déggal yonent bi ñu nit li yonent bi dinu jàngal dinu wax bu nu ko def ci sunu nopp ndeyjoor mu daal di jaar ci sunu ñopp càmmoñ génn lii nuy waxtaane mbokk jullit yi dama leen di laaj fii laay jeexalee yéen ñi ñëwoon ci conférence bi toog nii góor ak jigéen lan moo leen fi indi du ngeen ma ko wax lan moo leen indi ci conférence bi ah kenn nee na dañoo ñëw pour xam sunu diine da ngeen a ñëwoon pour dégg lan la yàlla wax ci dëkkandoo ak yonent dégg ngeen ko wala dégg leen ko allahumma fashhad yow yàlla yàlla na nga seede ne man mii keroog ba ma xale yi waxee yaay def waxtaan bi waxoon naa ko ñu ngi nii dégg nañ ko ku ci jëfe ci ñoom yàlla na nga ko dimbali ku jëfewul yow yàlla man wax naa asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu
alhamdulilah jazakallahu xayran cheikh yaakaar naa mawdu bi leer na comme ni mu ko doon waxee rek suñu fi jógee